réewum Sénégal moo amal taxawaay bu bees ngir jàmmaloo ak Covid 19 ginnaaw ñu jëlee fi importé yi fi mu nekk nag cas communautaire yi ñu wéy di lëmbee réew mi ci ba sub tey jii nag ñu amal junni test ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci nag mu def 109 cas positif maanaam téeméer ak juróom mu def 107 cas contact maanaam téeméeri ak juróom-ñaar ak ñaari cas communautaire benn ca Touba ak ca Padoua wër nag ci bésub tey ji kon toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar kon ci bilan tey ji mardi fukki fan ak ñaar ci weerub mai atum 2020 tolluwaayu mbas mi ci réewum Sénégal mu ngi tollu ci junni cas positif ak juróom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñu wér toll ci juróom-ñaar ak ñeent fukk ak ñaar ñi faatu toll ci fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne nag ñu ngi leen di fàcc ba lii kon tollu ci junni patient ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñett jëwriñ Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr ci xayma bés bi kon di sàkku ci askan wi ñu sàmmante ak matuwaay di ay ay mesures d'adaptation ngir jële fi mbas mi ndax tey xeex bi ci ay kàddoom du rekk xeexum sanitaire waaye xeexu ñëpp la.